wala yi ñooy faral di wax ne luy raam lu ne sa ñag ba la jëm lii nag lu ñu xaaroon la fi nga xam ne moom mooy ci quai de bu Mbour jàpp nañ ne ay fan a ngi nii coow lu rëy am na diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy wàllu gouvernement bi ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy pêcheurs yi li ko wund nag moom mooy benn quai de pêche boo xam ne nii dañ ko fee bëgg a samp waaye ñi nga xam ne ñooy nappkat yi dañoo lànk bañ li ko waral moom mooy dañu ne bu fekkee ne samp nañ fa li nga xam ne moom mooy kee bi ñoom seen gaal yi dootuñu am euh, fu ñu taxaw loolee nag mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo yor projet bi mënuñu koo dégg ba tax na amoon na ay jalte jalte yu njëkk ba ñoom ñooñee sax ñu defoon benn conférence de presse waaye dafa mel ni fulaalu ñu woon liñ doon wax ba tax na bi ñu ñëwee nag tey jii ñu gis ne ñi nga xam ne ñooy woy takk der yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi jàmmaarloo yu metti la ñu def fi nga xam ne moom mooy ci quai bi gis ngeen lii nga xam ne moom mooy ay image foofee ca ba tey jën amu fa la fa am moom mooy ay pneu ya ñu lakk ak bureau yoo xamante ne ni dugg nañ fa daal di koy taal waaye takk der yi nag dafa mel ni tey ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu pêcheurs yi xaw nañ leen sonal lool ndax en nombre réduit la ñu ñëw te ba ñu ñëwee aussi gis ngeen xeer yooye dañoo mujj nag daal mel ni daal ñu faible ba tax na bu 10 heures 50 jotee la gis ay yeneen renfort yoo xam ne jóge nañu boori cees ay gémi daal di ñëw li ñu mën a wax daal fii nga xamante ne moom mooy ci quartier tefes bu mbuur wala ñu ne ci quai de pêche bi tàng na lool foo tourné ay pono yu ñu tàll ay sànni xeer la ay xeexoo la ba tax na li nga xamante ne ni moom mooy tey wàllu jën daal jafe na trop fii ci diwaanu mbuur mu mel ni nag jot na ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité yi daal di toog waxtaanaat ndax ci ñi ñu jot a jokkool donte nanguwuñu def interview li ñu wax moom mooy que ne li nga xam ne moom mooy meeru dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yor projet bi nanguwuñu benn yoon wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi te jàpp nañ ne am na yeneen espace yoo xam ne nii mën nañ faa samp li nga xam ne moom mooy port bi te nag jàpp nañ ne ñoom li nga xamante ne moom mooy seen gaal yooyee li ñuy dundal dafa bëri frais yi dafa bëri ba tax na waxtaan moom ala kulli aalin dafay am amante ne moom mooy quai bi euh, du fi euh, taxaw mu mel ni nag kon ku nekk yaa ngi xëcc di jëmale boor ñu toog xaar wànnent di mu jékki gëtëm